nanga am fulla na nga am fayda na nga am pas-pas na nga mën a muñ hmm. ndax ñaar doomu ngay wuti kër sëñ Fall hmm. te ñaar yooyu yooyu benn bu ci manqué doo ko mën a am hmm. ndax fulla mooy tax li nga jóg di ko sàkku nga fexe koo am te mag mu ne lu ko tax a jóg war na koo ñor fayda ji mooy fexeel ba am ko fulla ji day ànd ak muñ ndax sëy kenn ku ne xam ne la neexul te danga gis lu neex danga gis lu naqari kon nag loo ci mën a gis rek nanga ko muñ te fexee la nga fay wuti nga am ko te la ngay ñaar dong la dee dem àjjana ak doom ju baax loolu ko maye kon nag nga am jom te doon say maam sa néeg maam bi nga juddoo de nit musu cee yam ndabul fay kenn ku ci ne rek dangaa nekk fa nga ne ba yàlla jóodee la fay musoo faa yam ndabul fay kon nag bul nu gàccaam néeg yee nga bàyyi ne doonatul pour yow pour yeneen xale yi ma yor ak sama donga yi la kon bul yaakaar ni mukk soo meree danga ko dugg fasal yéenee seey te bul seey loolu rek laa lay digal beneen bi ci topp jàng nga alquran ba wàcc ba toppaat ba tuuti desee nga laa mokkal yàlla dogal ñu maye la sam jàng tam waaye boo ci xamoon wenn saar rek te jëfe ko mën na laa jëriñ kon nag dangaa jëm ci xare xare bu metti te xare ku ca jëm dangaa war a yor ngànnaay te ngànnaayal julli nag fii suuf tee yàlla bi ginnaaw bu ñu la dénkee suñu borom bi tabaaraka wa taala téere bi laa la dénk ku ne ci àddina danga am ay jafe-jafe saa boo demee ba mer bu ma woo téléphone bu ma boole kon ni ma ko daan waxe bu ma jàmbat li ma bëgg nga dama ko wax daal lu neex ñaareel ba dolli ko bul saam sëb sëy ci mbir ndax soo ko saamee ku ne dana teggil sab saam dem te du la jariñ kon nag amal sutura amal ngor mën a la muñ saa boo jàqee ubbil téere bi bala nga cee jàng xaaju isib sun borom dindi sa njàqare bul dem ci jabar bul dem ci tënikat bul dem ci gisaanekat sun borom téere bii ba wut dara lépp a ngi ci saafaraang ci te ñaar rek moo ci ne def lu baax bàyyi lu bon xuppe bégle lu njariñ looy lor am lu baax am lu bon ñaan ko nangu ñaan ko nangu kon nag yemal ci téere bi deel jàpp ba seetlu julli sa ñaari rakk lépp lu la nar a jaaxal nga dugg sa néeg di jooy wala ngay woote di ko wax nga ubbi sa kaamil ñaan suñu borom fajal la ko nga toog nii kon nag man nga comme dangay xaraji nag benn ngaa naay man laa am muy alxuraan am macha allah man na ko yàlla nangu amiin amiin amiin man na ko yàlla nangu